la tête qui euh, cherchait Amadou Bari. Le ballon n'est pas sorti. Euh, Pape Daouda Il Pape Pour Amidou Kanté. Babacar euh, c'est une touche pour Malika. Il me semble pour le moment les deux équipes sont fatiguées avant la mi-temps. Ah oui, c'est normal, ils se sont donnés à fond. Et puis il y a la chaleur aussi à. Papa Django, attention à cette balle de contre Pape. La frappe Le sauvetage de Mamadou Lamissin Pape Django là, tout. Jour de l'Académie d'Arsalam, Salam. je joue numéro 8. J'anime. je relis, quoi. la jeu, quoi. Premier mi-temps, c'est que je joue avec ce niveau. Après, coach, il m'a dit mais bon après amon nañ ay occasion yu bari mais exploité wuñ ko bon xam nga équipe mënoo ko dominer nak 90 minutes ci temps fort am am na ay but cafouillage après bon mo am mo am benn bal après mo mu dugal ko quoi c'est dommage parce que parce que Dar Salam bo xolé ñuy jouer ñep dañuy naan suñu niveau nek régional waaw mais bon une finale ça se joue pas ça ça gagne aussi et l'adversaire a été mieux que nous. bon man jaaguma non tamit Dar Salam parce que parce que nekk bi mooy sama deuxième deuxième année muy joué Darou Salam daaw ci cadets yi laa nekkoon et tout après ren ren ci laa commencé ren ci laa commencé jouer, ñu may surclassé double surclassement là. parce que cadet normalement ci a commencé di jouer c'est senior après ak performance il nekkoon di def ak yooyu après si lañ ñëwee ba fii nii c'est Darou Salam nag mooy sama premier club mais ngi mais a maa ngi door commencé ak ci Salam ak yooyu

comme kii jàng bi c'est pas que dama bàyyi jàng bi sax pour kii si football mais damay jéem a làmbatu rek comme ni bi ne am nga talent ak yooyu noonu pourquoi pas essayer sur le foot quoi tu vois mais bon yàlla baax na daal yàlla na yàlla def li ci moom rek. man numéro 6 damay jouer numéro 6 en même temps numéro 8 genre milieu terrain ki yëpp laay jouer quoi partie milieu terrain yëpp dama koy jouer quoi mais bon man kii laay suivre. Bellingham mooy sama jour Bellingham moom laay xool des jours comme ça ñu xool dañ ñooy animé di genre box to box quoi box to box ak yooyu noonu bon loolu laay essayé def quoi Busquets damay damay suivre tamit Busquets lu bëri ndax des fois man damay jouer comme numéro 6 quoi. ama talent seul le seul le talent ne suffit pas aussi ama genre surtout surtout poste bi may jouer tamit numéro 8 dafa soxla mobilité bu bëri quoi. mën naa ne tamit physique bi des na parce que ñu bëri ñu ma koy wax mais bon dinaa ko gën a liggéey quoi parce que dara doyul quoi. Euh, pour l'instant maa ngi ci U20 sax maa ngi ci U20 mais bon dañoo ma génnoon maa ngi foofu foofu laa waroon dem ni mais dañoo génnoon pour jouer match bi waaw demoon naa ci U17 yi demoon naa ci U20 tamit depuis regroupement yi passé yëpp maa ngi ci U20 je suis sélectionné là-bas ñoo fa des noonu ñu ngi ak 23 ñoo fa nekk noonu maa ngi su ma paree nii foofu la ñu dem pour préparer suñu tournoi FOA incha Bonjour, je m'appelle Pape Daouro Diong, joueur de l'Académie Darou Salam. Je joue au poste de milieu de terrain. Bon, je regarde très TV. Hein.